abonné leen ci seen seen YouTube moom leen di jox xibaar yu wér Partout TV abonnez-vous Partout Partout TV waaw bu fekkente ne li ñuy wax ci problème mu Sonko mooy Sonko candidat la comme candidat yëpp pour lan bokk nañ ko bàyyi nañ bàyyi Sonko mu ñëw bokk parce que candidat la comme candidat yëpp jaay doole comme li may doon wax fii sànq quoi jaay doole bi ñuy bi ñuy jaay doole Sénégal yi tey la ñu war a la ñu war dafa war a dafa war a arrêté nañ ko bàyyee mu bokk parce que li may wax chaque jour ko euh, nguur yàllaa koy joxe quoi est-ce que comprendre nga tey bu fekkente ne ne euh, Sonko dafa war a nekk président wala dafa war a lu mu mënti nekk ah wala képp ku war a mën a toog ci réew mi tey yàlla décidé dina ba pare quoi li may ñaan mooy tey gars yi kon buñ ko ko xañ nañ ko bàyyi mu bokk.